noonu la demee mbokk yi ñoo ko déggandoo dañ koy daal di ubbee ak journalu record mu xëy di fësal ci xëtam gu njëkk Kalidou Koulibaly jamono ji nag club yu koy xëccoo bari na lool ci mercato bi bu ko ci mel ni waa Paris Saint-Germain ak waa Liverpool ñoom ñëpp taxaw nañu tekk alal ju takku pour mën a am Kalidou Koulibaly ci saison bi d'ailleurs sax nee ñu moom moo nekk joueur bi ñu gën a courtiser ci saison bi ndax Sadio Mané waa Real Madrid boobu ba tey ñoo ko doon xëccoo waaye jamono ji dafa mel ni coowam fay na waaye say bu xëy rek di nga dégg kële bi eh, di waxtaanee kii nii di Kalidou Koulibaly ak naka la ñuy def ba jot ci moom lu ci mën ci am daal waa Paris Saint-Germain moom eh, taxaw nañu pare tem pour mën a am Kalidou Koulibaly tey ci biir journalu record dafa deux ans day wax ci football di wax ci làmb tey nag dafa xëy di fësal naanaan ci biir naanaan ñu koy wax Mohamed Ndao Tyson nekkoon mbër moo xamante ne ñëpp ràññee nañ ko ndax touche bi nga xamante ni indi na ko ci làmb ji mu nekk mbër moo xamante ni nag 17 combat la am ci biir 17 combat yooyu 11 victoire la yi ci des yëpp ay défaite la te ñu ko def ñu ko jox défaite yi mooy Yékini daan na ko ñaari yoon Bombardier tamit daan na ko ñaari yoon Balla Gaye ñëw daan ko Gris Bordeaux ñëw daan waaye li ci des yëpp onze victoire la am Mohamed Ndao Tyson donte sax ay combat bariwul noonu ndax buñ ko comparé ak kii nii di Bombardier Bombardier am na lu toll ci dix-huit victoire loo xamante ne rek moom moo ëpp ay combat am Modou Lo tamit am na lu toll ci vingt victoire loo xamante ne moo ëpp ay combat am Yékini tamit am na amoon na dix-neuf victoire yoo xamante ne moom moo ëpp ay euh, combat wu Tyson waaye teewul ni rek dafa nekk nit bu siiwa siiwa siiw ci làmb ndax touche de révolution bi nga xamante ni da ko ci indi buñ ko waxee mu daal ni euh, Tyson sport et business ba na naka da daan boole sport en même temps business waaye bu ñu nga tegalee li nga xamante ni moom moo di parmélesam onze victoire yi ngeen nii kii nii di Mouhamed Ndao Tyson am na ko mi ngi ko am ci kaw euh, Ngaylum le 31 juillet 1995 teg ci tamit le 17 décembre 1996 daanoon na ki nga xamante ni moo di Daouda Diop Cheikh Maba tamit daan na ko le 30 juin 1996 Aliou Sey daan na ko le 7 octobre 1996 Mouhamed Ali daan na ko le 7 mars 1997 Tafa Gueye daan na ko le 6 juillet 1997 Toubabou Dior daan na ko le 19 avril 1998. Manga 2 daan na ko le 4 juillet 1999 Mor Fadam tamit le 7 octobre la woon 2000 Mor Fadam encore le 7 juillet 2001 mu nekk combat revanche boo xamante ni jël na wàllam ñaari yoon ci Mor Fadam Tafa Gueye tamit daan na ko le 30 mai 2004 waaye bu ñu ñëwee ci juróom benn defet yi nga xamante ni Mouhamed Ndao Tyson am na ko benn bi mi ngi jóge ci Bombardier le 25 décembre 2002 beneen bi mu jóge waat ci Yékini le premier décembre le premier janvier 2006 Bombardier tamit daanaat na ko le 7 janvier 2007 loolu nag moo nekkoon anecdote bi nga xamante ne kenn di ko fàtte ci carrière Tyson ndax ci période boobu la jote woon ak arbitre yi quelques jours après rek mu daan ni def conférence de presse ni moom mu bàyyi na làmb ñu toog ak diir ay ati at yoo xamante ni moom Mohamed Ndao Tyson kenn gisu ko ci biir arène bi après nag la ko nit ñi di bàpp ba mu ñëwaat le 4 avril 2010 daal di dajee ki nga xamante ni rek moom moo di Yékini ni daal di koy daan le 31 juillet 2011 mu ñëwaat Balla Gaye 2 daan ko Gris Bordeaux moo ko mujjee daan mais 3 mai 2015 année bi nga xamante ni moom Mouhamed Ndao Tyson ci la bàyyee làmb waaye jamono ji nag mi ngi biir euh, CNG Mouhamed Ndao Tyson borom bul faale borom sport et business moom la journalu euh, record xëyoon di fësal waaye dañuy daal di jàll ci journalu populaire. xëy di fësal lekk pic bi nga xamante ni moom la ñu jàpp ni moom mooy am ci coronavirus bi maanaam 10 jours yi nekk suñu kanam dinañu amaat lu toll ci 800 à 1000 cas yoo xamante ni boo ko totalisé dina doon deux 2000 cas fii nii ci Sénégal waaye mooy doon pic bi pic bi maanaam daal dañ ciy jaaree di wàccaat lekk waaye duñ ci yéegaat suñu ay nombre de cas fale falay jaare jeex wala sax nag dootul am bu ko defee comme ni ngeen ko gisee rek fële na la ci hôpital Dalal Jàmm professeur Fordou mi ngi yëkkati ay eh, kàddoom rek na naan jamono jii ku ci nekk da nga war a mën a jàpp ni yow ci sa jëmbi bopp kaa nga eh, yow ci sa jëmbi bopp am nga jàngoroy coronavirus bi ndax nga mën cee moytu moytul waale sa moroom waaye bu ñu gisee ni li nga xamante ni moom moo ñu kontaan loo ñu gis ko ci journalu populaire muy 98 malades yi nga xamante ni wér nañu ci 48 heures donc nekk na loo xamante ni nag yokkaat na nit ñi courage mayaat leen espoir que ni lii dina fi jeex yàggatul dara waaye bu ñu defee bilan depuis le deux mars ba suñ jooni yàlla yi tey jii lu toll ci 1329 cas positif am nañ ko 470 guéri 847 sous traitement ba tey santati yàlla la rek donte sax suñu nombre de guéri yi am na ay temps yoo xamante ni dafa beese woon lool jamono ji nañ ñaan yàlla rek saay bu ñu xëyee muy gën a yokk ñuy am nombre de guéri 100 trois cent jëpp jàpp kaw wala sax ñu xëy rek daal ni huit cent quarante sept cas yëpp wér nañu waaye nag bu ñu fàtte ni am na ci onze personnes yoo xamante ni génn nañ ci àdduna ñu leen di jaale seen mbokk di leen jaale Sénégal tey ñaan yàlla rek nakar ak tiis bi ñu jàngoro ji tekk mu daal di yem ci onze personnes yooyu noonu keneen bañati cee ñàkk bakkanam waaye bu ñu dikkee ci bisis nga xamante ne jàngoro bi duggoon na fa ubayee bu Kaolack tamit duggoon na fa tey Ecobank bu Touba la virus bi daal di laal dafa mel ni ab benn ndongo bu yeewoo foofu noonu moom moo am li nga xamante ni moom moo di jàngoro yo coronavirus bi bu ko defee mbokk yi dañuy daal di jàll ak yéen ci journalu L'Observateur mu daal di xëy di fësal. ci xëtam gu njëkk Mbathio Ndiaye Mbathio Ndiaye nag nee na ci biir couvre-feu bi feebaroon na fi feebar bu metti boo xamante ni sax yaakaaroon nañ day ñàkk ba bakkanam mujj gi dafa mujjee rek taal otoom génn daan ni mënul respecter état d'urgence bi couvre-feu bi ci guddi gi faaw mu génn rek daal di faju ji waaye heureusement sant yàlla ba mu génnee mu daal di yem ci ay euh, takk der yoo xamante ne dañ koo comprendre daal di koy euh, gunge ba sami municipal fa la fanaanu ba 6 heures du matin waat message tamit artistes yi di leen wax jamono ji artiste bu nekk war ngaa mën a comprendre que ni woy kese du liggéey danga kaa war a boole di leneen moom ci boppam mu ngi nekk jaaykat boo xamante ni ñëpp xàmmee nañ ko ndax day faral di dugal ay bagage am ci biir Snapchat bi donc artiste bu ci nekk rek da nga war a boole musique ak business parce que moo la ciy génne ndax jamono ji moom leen na ko ni am na artistes yu baree bari yoo xamante ni amuñu sax compte bancaire dañuy vivre au jour le jour maanaam lu ñu am tey rek jaay nañ ko tey pare ci di xaaraat beneen cachet tey ci biir journalu l'observateur la ñuy desandi ak yéen rentrée scolaire le 2 juin bi nga xamante ni suñu njiitum réew tànn na ko pour que élèves yi mën a delluwaat seen classe rawatina ñi nga xamante ni dañuy def examen loolu tax na naka le président de la fédération nationale des parents d'élèves du Sénégal ñoo ngi demandé waa lekk nguur gi ñu xoolaat date bi nga xamante ne moom la ñu jàpp parce que ñoom gisuñu ni seen sécurité njaboot mi ngi ci biir pour loolu am dañoo bëgg ba jàngoro ji nekk ci jàmm ba nit ñu commencé waat seen ay activité ñu soog a mën a bàyyi ñi nga xamante ne ñoo gis seen njaboot ci daal di dem ca école ba ba tax na nag boobu ba tey ñu ngi koy waxtaanee retour à l' des élèves nekk na loo xamante ni darul xelu parents d' élèves yu bëree bëri am nañ ci sax professeur yoo xamante ni dalul seen xel waaye du fii dong même fële na la ci France retour à l' bi nekk na loo xamante ni ñu ca bëri contesté nañ ko loo tax na sax école yi ci bari seen directeur yi ñoom nee ñu duñu tijji waaye fii nii ci Sénégal nag dañ ñaan yàlla di le 2 juin bi incha allah loolu daal di fii jeex ku ci nekk nga delluwaat say activité yaay bu nekk nga jàpp sa loxol doom yóbbu ko école waaye journal l'observateur la ñu jeexalee xibaaru revue de presse bi dañuy daal di ñëw ci mariage bi nga xamante ni ñëpp gis nañ ko muy diggante Bara Gaye mu Clean Oil ak Adji Dieng ñu koy wax naa mu nekk rakku Adja Diallo Adja Diallo ex Ibou Touré ex mannequin ñoom daal amal nañu mariage boo xamante ni ci benn villa privée lañ ko amalee daal di indi seen ay invité yu am classe indi tamit seen euh, griot VIP ñu koy wax Alassane Mbaye ñëpp ràññee ko waaye ñaa xarañ loo le sna le snapper le snapper boo comme ni ko nit ñi di woowee moom tamit mu ngi woon ci boobee mbooloo Adja mu ngi fi woon ak yeneen invité yoo xamante ni ñoo ngi doon jël seen téléphone di snap di wane ni ñoo ngi ci xew bu bi nga xamante ni dara manqué wu fa woon comme ni ko état d'urgence bu Sénégal interdiwee rek. tout rassemblement maanaam lépp loo xamante ni day boole ñaar ñett ñeenti nit uh, jëm kaw mu nekk loo xamante ni jamono ji nag dañ koy interdit totalement Sénégal ab bépp xumbaay ab rumbaay boo xamante ni suñu njiitum réew nee na du mu fi amati vidéo yooyu nag nga xamante ni invité yi ñoo ngi ko doon jël moom moo daal di àgg ci loxol gendarmerie ginnaaw bañ ko xoolee ñu daal di dem ci saa si teg loxo ki nga xamante ni moom moo di Adja Diallo ñaaxarañ loo Alassane Mbaye Baara Gueye Killing Oil moom ci boppam bi nga xamante ni moom moo doon jël soxna aji jënd mi nga xamante ni moom lañ doon takk ñoom ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ci xew ba organiser woon ko ñoom ñëpp ñoo ngi en garde à vue ca gendarmerie ba pour infraction à la loi jamono ji nga xamante ni état d'urgence ñëpp wooy wuyaay yooyu la ñuy wootee toog seen kër yi rester chez vous ñoom ñuy amal xew nekk na loo xamante ni nag donte police avant mu leen di teg loxo amoon na ñu ci bari ñu ko doon kaas ci réseaux sociaux yi ba tax na nag mbokk li leen ci seen xibaaru revue de presse di di leen jox dig incha allah jaa ngeen jëf yéen doog jàmm